asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm njiitu réewum Sénégal di Macky Sall ba ñu ko tegee ci bopp réew mi ba léegi dafa mel ni ne ñii nga xam ne ñoom ñoo bokk ci l'opposition bi neexle wuñu ndax teew ci bii di Sud Quotidien moom dafa daal di nemmeeku ne Macky Sall mu nekkee ci bopp réew mi ba léegi ko yitteel moom mooy ne ñii bokk ci l'opposition bi mu tegal leen ay ndëgg sërëx yenn saay sax ñu ëpp ci ñoom nag dañ ciy faral di joggi ci likaay bii di Sud Quotidien daal di ciy tàmbalee lim ñii nga xam ne ñoom ñoo bokk ci mouvement Y'en a marre ku ci mel ni kilifa Simon ak Tchad ñoom ñi nga xam ne nag dañoo dugal seen loxo ci ab trafic de passeport diplomatique ñu ne déet ni waaye suñu natango yi daal di xamle it ne kii di Khalifa Sall moom Macky Sall ci wàllu caisse d'avance bu mairie bu Dakar la ko daal di téye ci ab poñ keneen a nii moom it pourtant yombuloon affaire bi njiitu réewum Sénégal di Ousmane Sonko ndaxte moom teg na coono njiitu réewum Sénégal di Macky Sall ba sax li ñu njëkk def moom mooy daal di koy jëlee ci biir fonction publique ñu ne déet ni waaye kii nga xam ne nag moom mooy Ousmane Sonko te mu daal di jël ñetteeli place bi ci wàllu élection présidentielle yi ñu doon amal ci atum 2019 nekk ci ginnaaw njiitu réewum Sénégal di Macky ak kii di Idrissa Seck moom de dafa mel ni ne ci ndoxteelu atum la daal di ak ay jafe-jafe ginnaaw ba ñu ko jiiñee wàllu viol ak menace de mort ci kenn ku doon liggéey ci benn salon de massage te kooku du keneen ku dul Adji Sarr autolikaay bii di Sud Quotidien nekkoon ñi bokk ci l'opposition bi nañu moytu bu baax a baax njiitu di Macky Sall ndaxte moom la ko yitteel fexe ba l'opposition bi mu daal di koy neenal moom moomu di njiitu réew mi yow colikaay bi di Vox Populi mi ngi ñuy xamal ne ñu ngi koy xaar ci diwaanu Touba ci samedi bi nga xam ne moom la ñu dëgmal dafa fas yéene dem bu diwaan bu sell wi wante bi di Vox Populi mi ngi ñuy xamal ne di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké wax ne dañuy nar a yuuxoo njiitu réew mi te li ni mel nee na ko fa tey bugg ko fa ëllëg loolu nag moom moo tax mu daal di fësal ay kàddoom xalif général des mourides it daal di xamle ne kon manifestation duñu ko nemmeeku foofu nga xam ne de moom mooy ci biir Touba mu nekk ci wàllu politique ndaxte kii nga xam ne de moom mooy Macky Sall dafa fas yéene nekk ganam foofu nga xam ne moom mooy ci diwaanu Touba te bëggul dara lu xajamal tukki nemmeeku boobu jolikaay bi di lii quotidien ne kon xalif bi daal di nay soobee ki nga xam ne moom mooy Macky Sall ndaxte ay yuuxoo yu saf-sàpp la fas yéene woon dégg foofu nga xam ne de moom mooy ca Touba wante xalif bi ab fatwa la daal di fësal jëmale ko ci di critique euh, ci ab enquête boo xam ne waa ANSD ñoom ñoo ko amal jëmale ko ci nekkinu njaboot yi fii ci mim réew ñu daal di nemmeeku ci wàllu enquête boobu ne fii ci biir réewum Sénégal am na ci lu tollook juróom benn million ci ay nit yoo xam ne dañoo ndóol jolikaay bii di critique di ci yokk di xam le ne ñi ëpp ci ñoom nag ña nga leen di nemmeeku ci diwaanu Sédhiou ñu daal di wax ci mbirum trafique de passeport diplomatique ndax tey jii jolikaay bi di la mi ngi ñee xamal ne ñaari député yu bokk ci Benno Bokk Yaakaar ñoom defu nag leen di bokkul ucculikaay bi di libération di ko ci feelu di ko xamal ni kii di Mamadou Sall Boubacar Biaye ak tamit Sadio Dansokho ñoom ñett ñëpp nag dugal nañu seen loxo ci wàllu trafic de passeport boobu te fu mu nekk nii ña ngay waxtaane ca assemblée national ci naka la ñuy mën a def ba daal di dindi seen malaanu lay kii nga xam ne moom mooy kilifa moom it ma ngay jubal ca wàllu instruction ucculikaay bi di l'observateur di ñu xamal ni kilifa fa yéene sax toog na yàcc ñi yasaar ndaxte a cybercriminalité kilifa mi bokk ci mouvement Y'en a marre ak tamit Thiat ak tamit kii di Simon nekk ñett ñoo xam ne it ñooy ay kàngam ci biir mouvement boobu tey jii kon su fekkente ne daal dina ñuy nemmeeku ne lañ leen di tuumaal dëgg la dafa mel ni kon ne mouvement Y'en a dina daal di nërmelu suñu naataango bii di Assane Samb ci biir culikaay bii di réew mi quotidien di xam xamle ne li ni mel moom bu ñu ko daal di firndeel kon mouvement Y'en a marre dina am jafe ngir gëdd ga amoon démb Noël jeexale ko wàllu tàggat yaram record moo ñuy xamal ne Aliou Cissé nekkatul kuy tàggat suñu gaynde yi ndaxte moom contrat am jeex na ci li ko dalee fanweeri fan ak benn ci weeru août wante ba léegi fédération sénégalaise bu foot waxu ci lenn ndaxte ñoom ak Coupe d'Afrique bi nga xam ne moom la ñu dëgmal la ñu bëgg moom mooy gëmm seeni bët daal bàyyi ki nga xam ne moom mooy Aliou Cissé di wéyal autolikaay bii di stade moom di ñëwaat ci jongante yi ñuy xaar tey ci wàllu première journée des phases de poule bu Ligue des ak na Manchester United ak Chelsea wàllu lamb la ñu koy jeexalee ak colikaay bii di sunu lamb di ñu xamal ne ci wàllu bëre door dañ cee bëgg a dugal léegi ñii di mbër yi di sol ay gants wante colikaay bii di sunu lamb mi ngi ñu xamal ne li ëpp ci mbër yi ñu laaj ndax ànd nañ ci li ni mel ñoom dañoo ne alamuk ndaxte sol gants day soppi taar bi nga xam ne moom la bëre door daal di am ñoom ñu daal di gis ne bañ sol gants sax moom mooy tax ba lamb ji gën a neex lii moo nekkoon box julikat yi li gën a ñu leen di ñaanal

l'implication présumée de trois de ses membres très actifs. Mis à part Kilif Simon et du mouvement Yanama, souillés dans un trafic, nos confrères nous parlent aussi de Khalifa Sall qui s'est perdu dans la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Ce dernier, membre influent du Parti socialiste, est certainement la première personnalité politique à voir son image et ses rêves brisés à cause de son opposition radicale au régime du président Macky Mais il y a aussi Ousmane Sonko

Macky Sall et Idrissa Seck. Seulement, nous disent nos confrères de Sud Quotidien, en début de cette année, il sera lui aussi éclaboussé par une crasseuse affaire de viol présumé avec menace de mort sur une employée d'un salon de massage. Finalement, c'est comme qui dirait qu'avec le chef de l'État Macky qui s'y frotte, s'y pique. Restons avec le leader du parti APR qui est attendu ce samedi à Touba pour l'inauguration du centre hospitalier universitaire la ville sainte. Muntaha, qui a eu écho de plans pour huer le chef de l'État, met en garde contre toute tentative de ce genre. Le ralif désamorce les mines anti-Macky, nos confrères de Vox Populi. Dans le journal Li Quotidien, nos confrères d'ajouter qu'il est interdit à Touba toute forme de manifestation anti à l'occasion de sa visite prévue samedi prochain. L'ordre a été martelé hier par Serigne Bassirou Mbacké Abdou au nom du ralif général enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages. Ce sont nos confrères de Critique qui nous en parlent et qui nous indiquent au Sénégal, il y a plus de 6 millions de pauvres. Et nos confrères d'ajouter que c'est au niveau de Sédio que l'on note le plus de personnes pauvres. Sale pour les deux députés de Benno Bokuyakar. C'est le titre qui barre la une du journal Le Mandat. Nos confrères nous parlent de cette affaire de trafic de passeports diplomatiques. a été placé sous d'instruction, nous disent nos confrères du journal L'Observateur. D'ailleurs, ce dernier a décidé de riposter par une plainte à la cybercriminalité. Néanmoins, retenons avec nos confrères du journal L'Observateur que des parlementaires de la majorité comme de l'opposition sont aussi dans le viseur de la division des investigations criminelles. Thiat Simon Kilifeu mouillé dans une sordide affaire de trafic de passeports diplomatiques, des figures de proue du mouvement Samb trouve que le mouvement aura du mal à convaincre de sa crédibilité si jamais certains de ses dirigeants sont condamnés. Justement, toujours concernant cette affaire de trafic de passeports diplomatiques, nos confrères nous indiquent que les députés Mamadou Sall, Boubacar et Sadio Dansoro sont mouillés jusqu'à la moelle et selon nos confrères de Libération, l'on s'achemine vers la levée de l'immunité parlementaire des deux députés de Benno Bokk X. Terminons par le sport. À en croire nos confrères du journal Record, Aliou Cissé n'est plus officiellement l'entraîneur des Lions puisque son contrat est arrivé à terme depuis le 31 août. Mais jusqu'à présent, la Fédération sénégalaise de foot ferme les yeux, nous disent nos confrères du journal Record, car à moins de quatre mois de la fête du football africain, les autorités ne souhaiteraient pas s'engager dans un combat longue durée avec Aliou Cissé. Toujours Champions avec cette première journée de phase de poule. Nos confrères nous parlent de ces chocs de géants FC Barcelone, Bayern Munich, le tenant du titre Chelsea et Manchester United qui entrent en lice. La Ligue des Champions redémarre en fanfare avec les premiers matchs de la phase de groupe ce mardi. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.